mbokk yi jërë ngeen jëf ñi ngi leen di ziar di leen nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax a baax ñi ngi géejewaay open presse bi nga xamante ne bii caatu Daouda Fall ma koy amal fa sene bëre incha allah fële ca arène nationale le 12 dimanche ak Coly Faye numéro 2 mbokk yi xale yi géejewaay yaa nga doon ndeysaan génn nañu ndeysaan eh waaw waaw. eh jalal ma bàjjan borom mu soor ga ayca ndeysaan ca Forza nga noonu saan moo sol numéro 20 bi école de lutte Balla Gaye la nekk ndeysaan xale yi géejawaay yaa ngi noonu léegi nag ki ñuy xaar mooy caatu Daouda Fall génn ndeysaan caatu Daouda Fall la xaar mu génn idi jëlal ma jëlal ma borom musóor gi ah. John Kara ngi noonu soo paree ñu dem ci bàjjan ndeysaan sey John Kara John Kara John Kara ay ca John Kara ngi noonu ndeysaan mbokk yi waaw waaw sey John Kara mais bàjjan na nga may rek na nga may ca gannaaw eh

waaw waaw tey loolu ndeysaan tey waaw waaw ay waay bàjjan jëlal bàjjan mais mi bàjjan mi bàjjan dafa dégg de ah barki yonent bi man daal bëgg naa ko dégg bëgg naa ki nga xam ne bu ñëkkatee galan di nga xam fi ngay teg sa tànk jëlal ma bàjjan bàjjan a ngi noonu bàjjan bàjjan bàjjan waaw waaw man xeetu musóoru bàjjan jaaxal na ma sey bàjjan waaw cey loolu mbokk yi Thiatou Daouda Fall mooy amal open de presse Thiatou Daouda mooy amal open mbokk yi waaw waaw déggal loolu bandi ndeysaan eh waaw waaw mbër day lamboo saay-saay tuuti da ciy baax caata nga yegg si Balla Gaye ngay ñëw ay waay waxoon naa ko Basiru Balla ngay ñëw ndeysaan mbokk yi Sa Thiès ñëw na Sa Thiès dugg si na na épaulé rakam Sa ndeysaan mbokk yi Sa Thiès a ngi noonu rakku Balla Gaye ndeysaan ñëw soutenir si caatu Daouda Fall ndeysaan mbokk yi waaw waaw Sa Thiès ndeysaan waaw waaw tey Sa Thiès ndeysaan mbokk yi Sa Thiès a ngi noonu ndeysaan ndeysaan saa ngi noonu ndeysaan cey idi kenn du yow waaw waaw Sa Thiès nga waaw waaw rakku Balla Gaye noonu Samba Law be Samba Law be nga ca wet ga nga de Samba Law be nga ci wet ga Law be nga ca wet ga ak John Kara waaw waaw waaw Sa Thiès a ngi noonu ndeysaan mbokk yi ndeysaan mbokk yi gis ngeen prestation bu am solo bi nga xamante ne bii macha allah Sa amal na ko bi mu ñëwee ndeysaan loolu mooy wane que Guédiawaye ñoom ñëpp benn lañu bu kenn xew xewlee ñëpp ay jóg ñoo yëkkati wandoo di xàcc wandoo di dóorandoo ndeysaan mbokk yi ma nga noona Sa Thiès ñëw na Fils de Balla ñëw ña ngay xaar la Lion de Guédiawaye Balla Gaye numéro 2 ndeysaan cey lamb xorom sàng noonu ñuy wis xorom sanga noona ndeysaan waaw waaw déggal ma ngay duma cool di ràmbal yambaxal peek cey loolu waaw bi dafa yëmbaxal li nga xamante ne bii mooy peeki cool mi ba cool mi bee waaw waaw mu njatt ko benn place di ko duma di ko duma ñu dem waaw waaw géwél mbaay nga ne lan ndeysaan cey loolu waaw waaw déggal loolu di ko di ko rek waaw waaw loolu waaw waaw ndeysaan waaw teral xale ay syncope la lii mooy syncope ma yéen day waxtaan ak cool mi rës toolu fees na waay ndeysaan waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi ñuy suivre ci wasaare ak Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ak salaam te di ko sàkku ci yéen mbokki internet yi tey ñu ngi ci terrain Manko fekk ci open press bi nga xam ne Thiatou Daouda Fall moo ko organisé ànd ceeg école de lutte Balla Gaye ñu fas yéene préparé seen journée le 12 novembre ci arène nationale digganteem ak Coly Faye numéro 2 gone gi tey altine gi la préféré moom la jël fas yéene woon ay mbokkam li mu andi ci doole wala li mu préparé woon fan yii yëpp daa di répété bàkk woon amateurs yi ak supporters yi li mu nar a bàkku mu ngi noonu moom Thiatou Daouda Fall ca fas wa ndeysaan Thiatou Daouda Fall a ngi noonu ca fas wa tey ab fas weex tàll moom la duggee ci open presse bi des fois yi sopp ne tegtal la des fois ñu sopp ne gàllaaj la waaye li am ba des mooy laal naa dak cosaan ndax nag buur bu masaana jub xare ci fas lay war daa di xare waaw sunu buur yi àddina yi rawatina ñi nga xam ne ñoo fare ci Afrique rawatina ñi fare ci Sénégal waaye bu dee ñi nga xam ne ñoom ay arab lanu ca dëkki arab ya ñoom gëléem lan daan war ñu gis caatu Daawda Fall war li nga xam ne mooy fas weex wi ba wàcc ñëpp daal di riir topp ko ndeysaan gis ngeen géew bi na mu xajame gis ngeen lii tey du yomb ndax li mbër mi war a wane la mbër mi dafa war a wane ne am na doole entraîné na lu wóor bi combat bi taxawee ba léegi tëddul dina law mbër mi dafa war a wone ne ragalul adversaire ba mu jëlee avance am ba léegi ci sérénité la ne mbër mi dafa war a wone ne pare na mentalement pare physiquement pare mystiquement waaye tamit mbër mi dafa war a wone ne chorégraphie bu mat sëkk moom lay indi ca làmb ja loolu nag dafa baax ci open press ndax amateur yi dañu lay namm amateur yi dañu lay namm supporters yi dañu lay namm da ngay namm géew ndeysaan déggal ndand suuf Babacar a ngay ñëw géwél bu ndaw la ak a xam galañ sa café ngi nii ci suuf naanaguma ko boo yéexee tuuti ma naan Thiatou Daouda Fall a ngi noonu moom la ñuy dippee le panthère nee na 100 pour cent doomu Géejawaay. Daouda Fall ay baayam doomu mbër la ndeysaan. wolof day faral di wax doomu mbër. jàngal bëre ndax yàgg yàgg des na la ma sa ñam te doomu diw doomu diw rànkal kese la. waaw fexe ba la nekkoon ci sa baay nekk ci yow. moom la moom la ñuy wax donn sa baay doon sa baay ko gën. nga donn donn sa baay nga nekk la sa baay nekkoon moom moo ko gën. te xale bi ku ko gis xam ne sidditu mbër mi ngi ci moom macha allah. kon bu bëree wàcc na. bu bëree war na su bëreewul war na kon nag daa war a bëree kon caatu daaw dafa al bëreel. ndeysaan caatu daaw dafa la ngi noonu. mbay xale bi bokk na ci yaakaari géejawaay. bokk na ci espoir géejawaay ndax engagement fullaam faydaam ak li nga xamante ne bii mooy jomam macha allah te it xale bu nekk la ci yoon bas xale bu neex a jàppale la tamit xale bu neex a faral la ndeysaan macha allah. waaw ndax euh, bokk na ci li ñuy respecté mbër mooy weer wu ne bu ñu la gëjee gis bu ñu la gisaatee war nañoo sentir ak yokkute ci yow. nga yokkut waaw. combat boo mës a bëree boo bëree waatee combat ñu sentir ay ay ay aspect technique yu bees waaw waaw ci yow quoi macha allah xale bi. man bi ma ko mujjee gis ak bi ma ko gisaatee jamono bi bi ma ñëwee ci euh, face à la presse bi gàkku doon def ñoo àndoon je pense bien mais bi ma ko gisee laa xam ne kii macha allah mi ngi tëju di liggéey mi ngi mi ngi mi ngi progressé mi ngi yokk macha allah te mbër loolu lañ taamu ci moom war nañ heure bu buñ la gisee heure buñ la gisee gisaat la fan la fekkoon ñu fekk la nga yokk tuuti. loolu mooy loolu jikkooy mbër noonu la noonu lay mel waaye mbër warul nekk sur place rek fi ñu fekkoon ren déwén wala wala wala année prochaine bu ñëwee ñu fekkaat la foofu loolu du mbër. ba noppi ba noppi mu xarañ lool. ndeysaan ñu gis ko keroog ba muy bëree Kaaw Gourdin. waaw. combat bu rëy bi nga xam ne ni bëri na ko. bëri na ko Kaaw Gourdin ndeysaan waaye nag ci tàkkusaan gu mag la jëm Basiru digganteem ak Koli Faye numéro 2 Koli mi nga xamante ne bii moom tamit yaakaaru caaro yi la ndeysaan macha allah di mbër ma nga xamante ne bii dafa am ci lu mu jege. am fu mu am fu mu teg bëtam moom tamit Coly Faye numéro 2 ndeysaan mi ngi noonu ma di def ay ësëf maam ndeysaan moom caat. waaw wax ju bëri ji arrangé wu ma parce que waaw ma rek añ ba bàyyi fa suñu trépied ba xas nañu nag bàyyi na faw xas de bàyyi na faw xas waa wasaare waa wasaare la xas añ na ba añ na ba bàyyi ba bàyyi añ na ba bàyyi fa trépied ba di waaj a génn mën a ko eh, idikaay yi mu ñëw mën a ko man man saak bi laa yoroon yaa yoroon trépied bi <laughs> en tout cas yéen ñaar ànd yéen a ànd te xam naa yéen a bokk bool. Basiirou cuuraay li. cuuraayu njugub la. cuuraayu njugub la Babacar. ah. Basiirou cuuraay li. lii dund suur fu tàppet nekk. bay jàppel sa bopp ku am fit. <laughs> Eh, man gaynde laa du ma reculer. non recul. lii dund ko suy barki maa ngay seen ki nga xamante ne bii. moom mooy père ci biir géew ba ndeysaan moo sol lu la noona di niroo di nuroo njugub macha allah ma nga noona moom géejawaay lay nooyee léppam waay la melentaanu waay bu jóg di bëri sax danga koy gis mu ànd ak moom di ko jàppale ndeysaan ah kan kii Lamine Golo la Lamine Golo ngi noonu ndeysaan équipe nationale ban la lutte. bu bëree waaw. ah de histoire la moom. nekkoon na fa moom mii. moom ak cey idi cey idi. Pape ngi ñëw Balla Gaye ngi ñëw ndeysaan mbokk yi. su ma juumut Balla Gaye ngi ñëw. le lion de Guédiawaye dafa mel mooy waaj a si noonu. ndax nag wallaahi open presse su caatu Daouda bu ca Balla Gaye 2 xuusee jaanam wàcc jaanam wàcc na dafa delloo mbattu ca ndaala ndax caatu Daouda Fall taxawu na ko fu ne ànd naag moom fu ne daf na sacrifice bu ne ngir ngir Balla Gaye macha allah ndeysaan kon Balla bu ñëwee dafa jël mbattu li rek dugalaat ko ci biir ndaala Basiru ndax nag ñoom lii rek lañ desel gone yi waaw lii rek lañ desel xale yi dañ leen war a gunge ñoom it ba ñu nekk ay champion ñu xewle ñu ñëw taxawu leen ndeysaan ndax am naa yaakaar ne Balla Gaye numéro 2 feebaru Balla Gaye numéro 1 rek moom moo tere. waaw mu koy gunge ci làmb. wallaahi. paa gunge na ko ba wàcc. paa bi topp na ko fule ndeysaan. ñoom seen i papa dañ leen a gunge ba wàcc. ndeysaan ndeysaan. kon danoo war a gunge seen i rak gunge leen ñoom it ba wàcc. dañoo war a fay bor bi Basirou bor bi dañ koo war a fay. tey yaakaar naa ñoo ngi ci ñu ngi fay bor bi. te xam nga ussi Balla Gaye balaa ak champion di mat dëgg. mooy mu bëre def li mu war a def ba jaanam wàcc. waaw la mu yoroon mu def ko ci ay rakam. mu créé mu créé ay champion. benn champion rek mais mu créé ay champion yu mel ni moom fii ci biir Géejawaay Basirou. ndax tey ku ci mel ni Double Less woyam dootul fay. déedéet. bëre na ba bàyyi bëre créé ay champion. créé waaw waaw Sa Thiès ak Sa Thiès ak Balla Gaye ngi fi. Balla Gaye numéro un jaanam wàcc na. ndeysaan Youssou Ndour a ngi fi. Dégool moom jaanam wàcc na. ndeysaan père Robert moom it jaanam wàcc na. ndeysaan ay ñoom Mamadi Ndiaye ngi fi Ablaye Ndiaye ngi fi. keroog gis naa ngeen jëli foog naa doomu Mansour Diop la. waaw doomu Mansour Diop la kooku tamit daanaan la mi ngi ci yoon wi mi ngi ñëw. loolu mooy loolu mooy. def li la Daouda caatu Daouda Fall a ngi nii. lamb gi noonu lamb lamb la. père Mbaye Gueye. ndeysaan père Mbaye Gueye. jàpp ci Moustapha Gueye. Moustapha Gueye ngi fi. jàpp ci ñëw ba ci Serigne Ndiaye numéro 2. ndeysaan ma nga doona. lamb maa la ko wax lamb doon na teel a te nag kenn warul te mu mujjee puso bi ba pare mu réer ci say loxo. ngay wax nga lu rëy puso bi kenn waru koo mujjee mu réer. ndax démb ak barki démb. ba masaana wax pikin da xam ne goxu lamb la. te ba léegi nii passion lamb mën naa ne pikin la. dëgg la suñu nee pikin suñu nee suñu papa Boston. Balla a gi noonu ñu commentaire tuuti ci Balla Gaye soog a ñëwaat ci histoire Pikine le de Balla gi noonu sol benn liket bu noir ndeysaan ma macha allah Balla nga doona tey loolu idi des jumelles waaw ndeysaan Balla yaakaar naa lii mu def dafa rafet tey day may confiance xale bi da koy yokk li nga xamante ne mooy jom da koy yokk engagement waaw dani loolu mooy yoon xam nga tey instant bii nii école de lutte Balla Gaye dañoo nekk ci benn benn benn mën naa la koo tuddee ndax barki Demba Ndiaye dimanche bële passé. dañoo gis gaaku numéro 2. Balla Gaye ngemb ko yóbbu ko arène. waaw mu am defet. waaw Balla démb ngemb rakkam. waaw Ama Baldé mu am defet. waaw tey ci biir école de lutte Balla Gaye bi mu war a ngembaat. benn daw de Fall yóbbuwaat ko le 12. dimanche le 12. 17 novembre ñu war ko yóbbu mu war a jàkkaarloog Coly Faye a 2 mu mel ni ki nga xamante ne bii mooy Thiatou Daouda Fall dafa war a relever li nga xamante ne bii moom mooy défi bi dafa war a fompal waa Guédiawaye ak waa Pikine seen ay rongoñ incha allah le 12. loolu moo loolu mooy yoon. loolu moo ko war. ndax làmb dafa am lu mu baaxoo. ndeysaan. dañ koy faral di wax ci ci dund sax dafa am. moment yoo xam ne nii day neex am moment yoo xam day naqari mais bu saison bi tëj tijjee école de bi dafa war a fexe ba journée bu mu am bu ko ñàkkee dabu ji waat ko ca bay ñëw. waaw mais bas saison bi day soog ubbi mën naa ne ñu ngi ci six journée sept journée la nekk bi ñu dem mooy huitième bi kon mën naa ne dara paaseegul wala ni mu commencé ni ko continuer mën na may xale yi confiance mën na may xale yi li nga xamante moom mooy ñu a am jom parce que champion bu toll ni Balla Gaye bu nekkee sa gannaaw di bëre am na lu bëri lu bëri lu bëree bëri la nga xam ne di ko jom ba def di nga bëre ak jom bëre ak fulla kàkku wax na ko barki démb nee bi ma bëree ba daanu sama xel ci Balla la njëkk a dem kooku bi muy bëre mi ngi sóoraale Balla ci xelam ndax xeebalut kenn bësam. ndeysaan xale bu ci am bës ñëw na taxawu la. dëgg la ay jamono dañ doon faral di wax naan Balla Gaye de duñu ko gis ci école bi. waaw waaye mën naa ne daaw ak ren ku dem école de lutte Balla ak ku ci mën a am combat. waaw nga gis Balla takk ci rip. saf ci sap. loolu nag dafa am beneen motivation bu muy def ci xale yi ndax xam nañ ne ñoom it dañoo bëgg a nekk ay champion comme ni ko Balla Gaye 2 nekke te tant ñu ngi koy gis seen ginnaaw dinañ am lu ñu koy rusé waaye dina am jom bu mu leen di yokk dëgg la tant ñu ngi gis Balla seen gannaaw da leen di yokk jom mais nag bas li olof Njaay naan bu baax na ci raax bu tàng moo ci nekk sorti fils de Balla bi nga xamante ne bii defoon na ko donte boog Balla jotoon nañ cee jotoon nañ cee ay kàddu mais gën naa motiver li nga xamante ne bii mooy Balla parce que bu ñu xoolee depuis ba fils de Balla génnee ba léegi def déclaration boobu ba léegi géejawaay képp ku am combat Balla Gaye génn na ànd ak yow kon mën nañu wax ne upp baax na ci laax bu tàng macha allah mi ngi noonu. Balla doon day jàppale booy yi mais fi mu toll nii dafa da cee gën a accéléré jàppale bi waaw. da baax. waaw da ciy baax mi ngi noonu. ndax nag li ñuy ñurum ñurumee ci suuf di ko jëwante. waaw nga ne ko tell ci kaw ñu wut ci saafara moo gën. dëgg la mi ngi noonu loolu ndax bu ko neexoon ñu ko ñu ko koy jëwee. te bu boobaa lii ñu am tey duñu ko am. kon li ñu am nii duñu ko am tey ndeysaan. waaye ni ñu ko nee tell ci kaw. loolu dana ci baax. mi ngi ndax xam xam nga it lépp defar lépp defar la. lépp defar la. Balla it mën naa gis ne fu ma war a dem ba fa Sa Thiès demee mel na ni ñëw naa waaye tamit Sa Thiès dafa am wàllam moom Balla mu am wàllam. Sa Thiès day am bisu boppam. Balla day am bisu boppam. te ku ci nekk dafa am loo séq ak sa morom. mbay xoolal kii jaay bracelet mbëru ndaw yi. waaye kii Sénégal baas la sol. mbëru ndaw yi bul ma yàqal waay mbëru ndaw yi gis nga sama titre bi sama sama miniature bi tey. Ah. laa ilaaha illallah xaaral ma won la ko. mbay xoolal kii jaay bracelet yi. xaaral ma won la miniature bi tey miniature allahu akbar barki yonent tey yàlla sunu borom. mais Basirou fi ñu nekkoon neex na. xoolal bii miniature. ay baaba yal na la yàlla àtte ci yërmandeem ndeysaan bay yal na la yàlla àtte ci yërmandeem dama ñoo àtte suñuy jëf wallaay lazim Babacar yal na la borom bi àtte ci yërmaandeem ndax xam naa li ngay gis. xam nga lii ñu def nii dafa rafet. sama xel mi li muy def. mbay bi. dama kaa gis jëm si ma bëggoon kaa woo ko dama xel ñaaw. maa mu ne ma gis naa la ngay woo ko waa ji ndaw si. léegi nga pompali mus la gis naa gis naa di jàpp ci baa bi di ko xëj. idee gën a idee gën a garaaw ñëpp. xonq maa xonq mi. tey loolu ndeysaan champion bu mag mbokk yi ci fàttali ñu ngi tey ci terrain Manko. terrain Manko bi nga xam ne nii ci la champion Guédiawaye yëpp daje. ngir benn mbir. ndeysaan muy open press su fils Daouda Fall wala Thiatou Daouda Fall koy wax le panthère. ndeysaan noir de mu nekk xale boo xam ne Guédiawaye yëpp am ci moom yaakaar. ndax nag xale. waaye magam yëpp bootoo ci ginnaawam. waaw jox ko cër jox ko respect. c'est parce am na nu mu mel. dëgg la bu yaafuusoon bu amee bés bu mel nii. waaye doon góor gu mu doon góor xam li muy représenté. dëgg la xam ne papaam béy na waaram ci làmb moo ci des. loolu rek motivation la. dëgg la te ci tànk yooyu ci la nekk ba tey bésam mel nii. Balla bu la ñëwalee Sa Thiès ñëwal la ñu ne déedéet waay Lirou Diane ñëwal la nga xam de Balla ñëw Fils de Balla ñëwal la waaw xale yëpp ànd ak yow rawatina bàjjan nga xam ne bàjjan lu ko yëkkati ñu ne da koo jaral dëgg la Basirou damay faral di wax naan nit ñi ñàkk ñu fayda loo leen lebal loolu lan lay fay Thiatou Daouda Fall lii mu am tey moom moo ko liggéeyal boppam mi ngi doon ndeysaan mi ngi doon di def démonstration de boxe def na gauche droite esquiver def demi flexion jógaat mais Bassirou noo gisee xale bi. non xam nga Thiatou Daouda Fall dafa am loo xamante ne nii rek mën naa ne moom moo des tuuti ci xeexam. te wallaay bu ko corriger dina nekk xale boo xamante ni ku xeex ak moom bu boobaa say mbokk danañ la boot parce que dama koo gis mu xeex xeex bu métti diggante ma Kaaw Gourdin. Ah, nga gis muy dóor di xool kuu waaye bu fexee. ba kuu ko dal. waaw boobaa jaanam wàcc. waaw ndax ku mbër war ta nangu di ko encaissé. waaw lu dul da ngaa jàpp. waaw bu dee da ngaa jàpp dëgër boo encaissé ku mën na laa bañ a wàññi dara waaye jàppagoo buñ la dóoree ay ku am na nu muy demee dootoo xàmmeeti fi mbër mi taxawee ak fi nga war a jaar. waaw mais gis naa ko mu xeex xeex bu jaar yoon di siggi di dóor di xool adversaire am bu fexee ba dootul encaissé ku dana nekk champion ci boxe. parce que loolu nga wax yaakaar naa ay coach som du ñàkk ñu ñu ñu rectifier ko ci loolu. parce que nit yow remarque boobu nga def ba seetlu ko ci moom ñàkkul ay ko sam def nañ remarque boobu tamit du ñàkk ñu rectifier ko mais li ñu mën a wax mooy espoir la yaakaar la te it li muy def mën na ko mën na bëre su jàppee day bëre soo ko jàppee day bëre bu songee day bëre boo ko songee day bëre macha kon mën nañoo wax ne. Coly Faye numéro 2 am na adversaire de taille am na xale mais nag ki muy dajal Coly Faye Coly jiitu ci làmb di waree caaro yi caaro yi di dëkku làmb suñu nee Papa Kane fa la dëkkoon ndax foofu mën nañu wax ne dëkku làmb la suñu nee ki nga xamante ne bii moom mooy rëg-rëg fa la dëkk jamono bii ñu ne foofu dëkku làmb la su nee Xaadim Njaay fa la dëkkoon ñu dëkku làmb la foofa lay waree incha allah fa seen a ñëw arène nationale wante daal li ñu mën a wax mooy. ñaari xale koy bëree Alburax Alburax Events mën naa ne li mu organisé combat yëpp ay grand combat la combat yëpp ay grand mu organisé ko ci benn journée kon kooku mën naa ne dafa ñëw ngir suqali làmb Baye Ndiaye gàcce ngalaama ndeysaan Baye Ndiaye gàcce ngalaama waaye Babacar da nga wax léegi ci wàllu technicité te Thiatou Daouda Fall bokk ci mbër yi nga xam ne nii benn kele daanu leen. waaw da ngay def ñu teggi nga defaat ñu teggi mën nga ko àgg fu sori. yaakaar ne daanu ne te jeexalagul te gis nga loolu dafa bokk ci liy ub làmb ñu bëri di Lac de di door. dañoo ne dafa défensive. waaw te ci défensive boobu ci la bëree ak le le roi des arènes Yaxya Diop daan ko ci. ci défensive am boobu ci la bëree gone gi naqaree bëreel. Modou Lo di Modou Lo ñu ci la bëree ak Boy Niang 2 nga xam ne dafa naqaree bëreel moom it technicien la. génn ci daan ko. ci la bëree ak mbër yi gën a naqaree bëreel. te daf cee am ndam loolu rek day wone ne. ndeysaan mbokk yi cey liiru waaw waaw per mbaw gi noonu ndeysaan cey caat sec cey caat sec cey caat sec xam naa loolu eh, mais ñu sa bis

macha allah kontaan naa Lamine kontaan naa jërëjëf macha allah caat sekk nga noona ndeysaan caat sekk ngi noonu ndeysaan mbokk yi caat sekk nga noona ndaanaan la ndaanaan kullu fadrin la yaa woyli la der nga xam ne ndaanaan dëgg daanu cey bàjjan jëlal bàjjan idi bàjjan lu mu a def nii ndeysaan waaw waaw caata gi noonu caatu Daawda Fall gi noonu mbokk yi ndeysaan rakku dë gi noonu doomu Daawda Fall gi noonu ndeysaan le fils de Daawda Fall Balla Gaye e gi noonu ndeysaan Balla Gaye jëlal ma Balla Gaye ndeysaan ni mu taxawoo xale yi rafet na moom Balla Gaye ndeysaan cey Balla cey Balla cey Balla cey Balla cey Balla baax na waaw waaw waaw cey loolu ay ca idi ndeysaan yeggaleel tuus mi waay bul dagg tuus mi caat waaw jalal caat tànk waaw waaw Abdou Daouda Fall allahu akbar barki yonent te yàlla sunu borom. mais Basirou fi ñu nekkoon neex na. xoolal bii miniature. ay baaba la ilaha illallah ay na la yàlla àtte ci yërmandeem. Ndeysaan Mbaye yal na la yàlla àtte ci yërmandeem. te bañ ñoo àtte suñuy jëf. wallaahi lazim Babacar yal na la borom bi àtte ci yërmandeem ndax li ngay gis. def nii dafa rafet. sama xel mi li muy def. gis nga ñaatiiru mbay bi. dama kaa gis jëm si guddi. ma bëggoon kaa woo ko dama xel ñaaw. ma mu ne ma gis naa la ngay wax ko waa ji ndaw si. léegi xam nga pompe li mus la gis naa gis naa Idy di jàpp ci baa bi di ko xëj. Idy gën a Idy gën a garaaw ñëpp. xonq maa xonq mi. tey loolu ndeysaan. champion bu mag mbokk yi ci fàttali ñu ngi tey ci terrain Manko. terrain Manko waaw. terrain bi nga xam ne nii ci la champion Guédiawaye yëpp daje. ngir benn mbir. ndeysaan muy open press su fils euh, Daouda Fall wala Thiatou Daouda Fall koy wax le panthère. ndeysaan noir de mu nekk xale boo xam ne Guédiawaye yëpp am ci moom ndax nag xale. waaye magam yëpp bootoo ci ginnaawam. waaw jox ko cër jox ko respect. waaw ah. c'est parce que am na nu mu mel. dëgg la bu yaafuusoon bu amee bés bu mel nii. waaye doon góor gu mu doon góor xam li muy représenté. dëgg la xam ne papaam béy na waaram ci làmb moo ci des. loolu rek motivation la. te ci tànk yooyu ci la nekk ba tey bésam mel nii. Balla bu la ñëwalee Sa Thiès ñëwal la ñu ne déedéewaay. liiru jaan ñëwal la nga xam ne moom Fils de Balla ñëw Fils de Balla la waaw xale yëpp ànd ak nga xam ne bàjjan lu ko yëkkati ne da koo jaral dëgg la Basirou damay faral di wax naan nit ñi ñàkk ñu fayda loolan lebal loolu lan lay fay Thiatou Daouda Fall lii mu am tey moom moo ko liggéeyal boppam mi ngi doon ndeysaan doon di def démonstration de boxe def na gauche droite esquiver def demi flexion jógaat mais Bassirou noo gisee xale bi. non xam nga Thiatou Daouda Fall dafa am loo xamante ne nii rek mën naa ne moom moo de tuuti ci xeexam. waaw te wallaay bu ko corriger dina nekk xale boo xamante ni ku xeex ak moom bu boobaa say mbokk danañu la boot. parce que dama koo gis mu xeex xeex bu métti diggante ma Kaw Gourdin waaw nga gis muy dóor di xool kuy waaye bu fexee ba kuudu ko dal rek boobaa jaanam wàcc ndax ku mbër war ta di ko encaissé waaw lu dul da jàpp bu dee da ngaa jàpp dëgër boo encaissé ku mën na laa bañ a wàññi dara waaye jàppagoo buñ la dóoree ay ku am na nu muy demee dootoo xàmmeeti fi mbër mi taxawee ak fi nga war a jaar mais gis naa ko mu xeex xeex bu jaar yoon di siggi mais bu fexee ba dootul encaissé dana nekk champion ci boxe. parce que loolu nga wax yaakaar naa ay coach du ñàkk ñu ñu ñu ñu rectifier ko ci loolu parce que nit yow remarque boobu nga def ba seetlu ko ci moom ñàkkul ay coach sam def nañ remarque boobu tamit du ñàkk ñu rectifier ko mais li ñu mën a wax mooy espoir la yaakaar la te it macha allah li muy def mën na ko mën na bëre. jàppee day bëre soo ko jàppee day bëre bu songee day bëre boo ko songee day bëre macha allah kon mën nañoo wax ne Coly Faye numéro am na adversaire de taille am na xale mais nag ki muy dajal Coly jiitu ci làmb di waree caaro yi caaro yi di dëkku làmb su ñu nee Papa Kane fa la dëkkoon foofu mën nañu wax ne dëkku làmb la su ñu nee ki nga xamante ne bii. moom mooy rëg fa la dëkk jamono bii ñu ne foofu dëkku làmb la su ne Xaadim Njaay fa la dëkkoon ñu ne dëkku làmb la foofa lay ware incha fa seen a ñëw arène nationale wante daal li ñu mën a wax mooy ñaari xale koy bëre alburax alburax events mën naa ne li mu organisé combat yëpp ay grand combat la combat yëpp ay grand combat la mu organisé ko ci benn journée kon kooku mën naa ne dafa ñëw ngir suqali làmb Baye Ndiaye gàcce ngalaama. ndeysaan Baye Ndiaye gàcce ngalaama waaye Babacar da nga wax léegi ci wàllu technicité te Thiatou Daouda Fall bokk ci mbër yi nga xam ne nii benn kële daanu leen. waaw da def ñu teggi nga defaat ñu teggi mën nga ko àgg fu sori. yaakaar ne daanu ne te jeexalagul te gis nga loolu dafa bokk ci liy ub ñu bëri ni Lac de Guiers di door. dañoo ne dafa défensive. te ci défensive am boobu ci la bëree ak le le roi des arènes Yaxya Diop Yékini. daan ko ci ci défensive am boobu ci la bëree ko gi naqaree bëreel. Modou Lo di Modou Lo ñu ci la bëree ak Boy ñaat 2 nga xam ne. dafa naqaree bëreel moom it technicien la. waaw génn ci daan ko. ci la bëreeg mbër yi gën a naqaree bëreel. te daf cee am ndam. loolu rek day wane ne. aja test test test. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey ñoo ngi fii. allo allo allo allo allo. allo allo. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew dañuy seeta tey open presse yu Thiatou Daouda Fall. fii ci Sam terrain 15 yaakaar naa ne nga woote ko terrain manko sa mbokk yëpp ñëw sa mbokk mbër yëpp ñëw pousser la vers la victoire nga jëm sa takkusaan le 12 novembre Baye Ndiaye Events woote ko sa diggante qualifié numéro 2 dañ lay nuyu rek baa la nga nuyoo mbokk internet yi ñu jublu si liggéey bi. asalaamaaleykum. moo waxal. laxas ko laxas ko ay ay jox ko jox ko kol bee. waaw waaw waaw daaw a tënk. jël kol bee jël kol jël kol. kol kol kol jël kol. jël sa kol. da ko si la mos da ko si la mos da ko si la mos da ko si la teew. da ko si la teew doo def dara. mais yow mbër mi mën na ko téye rek ñun kuy posé di yow téye ko pour nga toog téye ko ayca Thiam ñu ngi lay nuyu. waaw fay mu doon doon di nuyu waa baax a baax a baax di nuyu 53 ASC yëpp gis naa seen taxawaay kontaan naa bu baax a baax a baax di ñaanal waay jàmm yàgg bu baax a baax a baax di nuyu mbokk internet yi di nuyu wa diaspora bi yëpp di nuyu waa Waalo bu baax di leen wax combat bi seen combat di nuyu waa Casamance wa Guinée xam nga waa waaw maa ngi nuyu bu baax a baax waa Sierra Leone aussi tamit maa ngi lay nuyu. Hmm. tey sa open press nga ñëw say mag ñëw ñoo bokkal écurie ak ñoo bokkul écurie ñëw tay yëg-yëg bi lan la. waaw booster nañ ma de wax dëgg yàlla. Hmm. waaw parce que combat bi jëloon naa mille pour cent à mille pour cent ba ma gersoo gis Balla ma numéro 2 suma papa suma lépp di nga wax ni ko gis nga mbooloo ni toll te amaguñ billet billet ci weew lañ koy yaakaar ginnaaw yàlla hmm. waaw di wax ni regroupement yi tamit teg nañ ko ci biru bàccil man maa la sas loolu man Thiatou Daouda Fall sa doom hmm. euh, di wax euh, kontaan naa trop si li ma gis Sa Thiès li ma gis sama papa sama lépp muy Lirou Diane hmm. waaye ngir waale yëpp gis naa seen taxawaay bépp équipe bu nekk bi géej waaye rek gis naa seen taxawaay kësu El Hadj ma fayam hmm. sama kësu Mor sama kësu Père Abdallah mag la mais daa bàyyi lépp ñëw taxawu ma di sant sama waa fans club bu baax di masaw coono képp kuy bëgg Thiatou Daouda Fall ñëw taxaw fii di la ne leen bépp coono woo daj fii rek incha allah la ko fay dinaa si ndaw. techniquement Thiatou Daouda Fall fan la toll parce que xale bi ngay bëreel ndaanaan la mosul am defet biir géejawaay dugg na fi trois fois génn fi trois victoire daan na sa mag Youssou Ndour daan sa mag Maga Seck daan na sa mag Ould Taya takkusaan gi ana ngay waaj waaw loolu lu jaaroon jàll la te bu muy duggee yaay boo man booy la miin na fi de bu tombee wala jamono ji doo fi duggati sama papa sama lépp muy père euh, Pape ma Fall dañ na si ay coono yàlla la tul fanaan a la tul chaque jour ak fu ñuy yóbbu chaque jour ak xaalis muy dépense si ñun namuñu dara lépp luñ bëgg mu defal ñu ko yàlla xam na ko xaw ma fayam maa ngi koy bu baax a baax a baax a baax di ko lépp yokk si baat seen naa Mohamed Coulibay nag li ma koy wax bëriwul daan laa sëfal moom te incha allah dinaa ko daan dimanche. incha allah dafa leer mbër la moo xamante day bëre di xeex di xeex di bëre dawul xeex dawul bëre. moom day bëre di xeex di xeex di bëre. ñun dañuy bëre di xeex di xeex di bëre. di nelaw du bëre xeex kese du bëre kese mais moom daa mën bëre man moo mën daan man xëccoo ma bëre daan laa xëccoo daan laa waaw waaw Thiat ñi ngi lay nuyu ah. Thiat ñu ngi lay nuyu. dama soog Thiat ñu ngi lay nuyu. <laughs> ñu gis ni yow ak Coly Faye di ngeen a bokk entraînement ba vidéo yi génnee ñu gis ni gars yi ñu ngi comparé que ni Coly Faye waaw eh dama soog Coly moom moo la ëpp doole loolu lan nga ciy tontu. alhamdulilah laa wax parce Coly leen rek laa am lu ma koy wax hmm. di ko ñaan ci bat say danga Mohamed mën ñëw participer rek naa gis présence am si géew bi rek loolu rek laa soxla ci moom ma wax ko ni ko entraîné naa doole entraîné naa boxe bëri naa wa hmm. sama ko su Lamine Faye aw ma fayam teg na ma lu ne sama papa mbës hmm. dinaa ko won liñ ma teg yëpp incha allah dama dama jëli Coly Faye dama jëli Coly Faye dama jëli Coly Faye mu ne ma yow danga koo umpale parce boo ko umpale wul woon damay arrêté question bi damay jëli Coly Faye mu ne yow da nga koo umpale ndax soo ko umpalewul woon yow di ngay communiquer ak ni ngay waxee du benn ne jouru làmb ja moom dina la woon lan na la kiwee te nee na combat bi fi mu ko teg su koo teg ci ay combat am parce que ñi ko entouré dafa am ñoo xam te dañ koo bàyyi woon dañoo ñëwaat loolu lan nga ciy tontu. moom fenn rek foofu. fan la ko teg. làmb avant toute chose da ngay entraîné ba am doole lépp léeg-léeg loo si fekk si si la beneen beneen bi mooy dañ koo gis John Waar ak ki nga xamante ni moom ak euh, kii waaye ak Siteu ñu gis ni dafa dem yokk jiwaat doole euh, yokk cere dooli ñeex ñu gis ko dafa dem yokk cere dooli ñeex gis nañ ko tamit mu voyage ñëwaat ndax nee na ngir combat boobu noonu nan nga ko gisee vu que ni moom ñi ko entouré ñëpp am nañ combat ci côté entraînement yow li ngay wax noonu vidéo dégg rek laa ci am parce que moom jot bi am bay voyage man maa ngi am jot entraînement ak dal mhm. loolu lañ ma sant sant ñu ma leneen di nuyu sapos di nuyu 100 bi yëpp ak 100 pour cent Mala Goutti bi ma fi aw Grand Médine bi di nuyu sama grand sama lépp muy Paul ak Paul bu Sam Baye Dulaat Pël sama doom day la joor. booy nuyoo bi mooy mu ñoom la joor ak ñëpp di nga leen nuyu bookar ñëwal wala. aja bookar hmm. la ziar naa la. fayu maa la de. Hmm. a mën mu lamb hmm. la comme lamb yi rek mais li ñuy préparé ko préparé beneen combat te incha allah li ñu ci ut ko am maa ngi tàllal loxo képp kuy téye di la ñaanal na Sadio ma ñaan loolu man maa leen ñaan rek ñu Sadio ma ñaan yàlla mu ma xam a ci doole ci bëre mu takk ma ne ma si bisu am naa Balla Sa Thiès su ma doon ba ne am naa ak sama dara jaaxaluma. waaw tey bi xoolee sa plan loolu parce que marche la rek ku ne da ñam mm-hmm. caat victoire yi mu may nees mbooloo la is nekk naa dem incha allah. ba tey ci takkusaan gi nga jëm da nga jëm ne ñi bëree ñëpp grand combat la ñu yow mi grand combat nga mujj la ñu ca Daouda Fall nan la mën a def parce que lamb affaire de mbooloo la nan la man a def ba andi mbooloo bu bëree bëri biir stade. dégg nga li ma wax léegi xanaa gis ngeen mbooloo bi ngeen fekk. waaw waaw. xam nga ne boobu cinq mille francs na nekk quatre vingt dix mille. bala yooyu day jënd billet. day jënd billet. Hmm. incha allah loolu man maa ko teg ci ndodom te incha allah dina jënd biir. ayca ñu bàyyi di sant bépp mbër bu teew fii fils de Balla xam nga Youssou ñoom la joor gaa ko gaa ko doy fi mu dem xam mu nekk xewal ci moom. Hmm. waaw di nuyu di nuyu di tàllal loxo góor yombul. maam góor maam góor maa ngi koy tàllal loxo bu baax a baax a baax a hmm. di sant Moussa Fall Balla Gaye hmm. na ci combat bu Balla Gaye ak Sa Thiès la. jàpp na jàpp na ci combat bu baax di tàllal loxo Mansour Ba Ibrahima Diop maa ngay tàllal loxo baax a baax a baax a baax waaw dinaa leen sant bu baax Pathé Cissé yow xam nga doo ngaaga waaw am na lu ñuy ñu waxante te incha allah dina ko def waaw sama grand sama lépp Aliou Lo borom sentir yoo waaw nee na am na woote ne amul xaar moo tax mosuñu xaar kenn njaga baala ngay sama grand sama lépp aw a fayam barke alxuraan karim billahi aw a fayam heure bu Pierre borom États-Unis une a lotul fan a lotul seex bi Malika seex bi ah seex bi combat Jamil borom Nourou la Issa Sissoko Bobo borom Karaba Ismaïla hmm. Ismaïla ama Bogot xam nga borom Jembere borom Kabrousse ama fayam di nuyu Eva Diatta depuis France ama fayam di nuyu képp kuy noyyee waay aw ma sa fay yàlla la yàlla jàppale lépp li ngay dund ya lépp si lépp lay dund yàlla la yàlla fay yàlla nga yàlla ful yokk lépp adoo ama fayam soxna wuri laa mujjë laa moom la Oumar Fall sama papa Samba Ndour waa Belgique dama leen di sant bu baax taay gën leen ma dégg nag xam nga lu tax parce que dañ maa gisee bee clé bi dañ ko teel jox moo tax fan yii dégg bi daa a ñëw dafay nee na kóol bi moo kon parce que moom xamul affaire GP ay jokkalante xamu ko lool waalo Fuuta. Ah, ah. waalo waaw waalo waaw Fuuta. xaw ma seen fay maa leen woo baax a baax a baax a baax a baax waa Gambie waa Casamance maa leen woo bu baax a baax a baax. Aziz Ndiaye. Aziz Ndiaye. ñun doomu géej waay lañ yàggee ciy jàpp mais bii dañoo bëgg nga gën see jàpp dañoo bëgg nga saf si sàpp la ma maa ngay bu baax. may nañu xaalis képp kuy bëri si journée bi dëkk Géejawaay xeewaluñ ko ko nag xeewaluñ ko ko de lim ñu may xeewaluñ ko ko benn yoon sant nañ ko si bu baax a baax a baax a baax a baax uh-huh. jërëjëf di gërëm di gërëm ñu fi teew ñëpp di leen wax rendez-vous dimanche incha